لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بقي السلام عليكم ورحمة الله ñu ngi leen di ziar di leen dokkeel ci koor gi di ñaan yàlla mu nangul ñu nangul leen suñu jotaayu xadis jotaayu kooru tey ci xadis bi nga xamante ni moom la ñuy jël mooy xadis abi hurayra radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam man kadaba alaya mutaamidan falyatabawa maqaadahu min annaar muttafaqun alayhi xadis bi abu hurayra moom moo ko nettaliwaat ad dawsi dafa wax ne yonent bi alayhi salatu wasalaam daf ne man képp koo xam ne kadaba wax na lu amul alayya ci man a waxal na ma lu amul mooy sosal na ma mu tax mutaamidan ci tayeef du njuumte bu dee njuumte loo xamante ne nit ki jubluwu ko ba noppi tamit jël ay matuwaayam ci moytandikoo na mu war a moytandikoo def la mu war a def gëstu tey xool waaye njuumte dal ko kooku dugg ci waaye ki nga xamante ni ci tayeef daa waxal yonentu yàlla bi alayhi salatu wasalam waxul wala bu ko tayul itam lu na gàttañlu goo xamante ni il est condamnable ci li mu def ci ne wax waxal yonente bi alayhi salatu wasalaam mbiru diine la du caaxaan du lees di sàggane di def loo dégg rek daal di nettali kafa bin mari kadiban an yuhadditha bi kulli ma samia doy na nit ki mu nekk waxkatu lu dul dëgg ñu bindal ko bàkkaaru wax lu amul muy def ne lépp lu mu dégg rek daal di koy nettali da ngay gëstu da ngay jàngat da ngay xool da ngay laajte bu dee xamuloo li ñuy tuxal di ko jële ci moom ci yan anam lañ ko mën a àttee ni lu wér la ne moo ko wax bañ mën ko ko askanale wala déet ba nit ki xamul mu laajte bu mu xamee nag mu gëstu ba lijjanti ba xam ne lii wér na luy war waras na ko ko mën a askanale mu soog ne yonent yàlla bi nee na ndax li muy wax diine la joo xam des koy diine woo li muy wax askanalewu ko yonent bi yem ci alayhi salaatu wasalaam waaye yàlla la koy askanale ndax wa maa yantiqu an il hawa in huwa illa waxyun yuuxa li yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ci suñu borom la ko jëlee ci wax yu la koy wax te bu ko waxee itam day daal di nekk mbiri diine ju ñuy diine woo di ci jëlee ay àtte di ci daganal di ci araamal di ci jaamu yàlla kon loolu du loo xamante ni warees na ko woyofal xam am xam am solo gi nga xam ne ay waxam am na ko solo ak li nga xamante ni moo cay topp moo taxoon mu wax ne képp koo xam ne waxal na ko lu amul ci tayeef falyata ba wa na waajal maqaadahu wàccuwaayam minan naar ca safara na daldi wàcc na daldi occupé li nga xam ne mooy wàcc waayam ci safara faleeta ba mën nañ koo jàppee ñaan walla mu ñu ko jàppee ixbaar boo xamante ne day wane ne kooka dina wàcc ca wàcc waayam safara mooy defaral nañ ko wàcc waay ci safara boo xam ne dina fa dina fa dëkk mooy waajal nañ ko wàcc safara palaasam safara boo xam ne dina fa dem dina ko occuper wala yàlla na ko yàlla wàccal ca safara yàlla na occuper place am ca safara yàlla na ko loolu dal kon loolu xadis bu raglu la xadis bu tiitlu la ci képp kuy wax naan yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam war nga bàyyi xel xadis bi ci ne dafa bokk ci bàkkaar yi gën a mag nit ki sosol yonentu yàlla bi alayhi salaatu wasalaam ne wax na te li mu wax ne wax na ko dara waru ko ci saxaaba yi xamoon loolu tax ñu ragaloon di nettali ay xadis di ko jëmale ci yonante bi alayhi salatu wasalaam abdurahman ibni yazid nee na abdullah ibni masud radiallahu anhu daan nañ nekk ak moom lu mat at duma ko dégg mu ne yonante bi alayhi salatu wasalaam nee na ban naka noonu tamit ñeneen ci ñi daan ànd ak saxaaba yi wax ne daan nañ toog matalan ku mel ne ibn abi layla doon na wax ne daan nañ wax layla zayd ibn al arqam naan ko waa ndax doo ñu nettali jële ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne leen kabirna wa nasina wal xadiithu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shadid dañoo jëm mag moo tax fi mu nekk nii teewlootuñu lam lañ déggoon ca moom dañoo fàtte lu bari te di wax di nettali di jëmale ci yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa diis responsabilité bu diis la ci ñi daan ànd ak anas am na ci koo xam ne daf ne daan naa nekk ak anas ibnu malik lu mat atub yàlla du ma ko dégg mu ne yonente bi nee na alayhi salatu wasalaam amna ci ci ñu daan ànd ak Abdoulaye Masoud nee nañ bu ñu mësaan dégg Abdoulaye Masoud mu dem ba soxlaa nettali lu mu déggee woon ci yonent bi alayhi salatu wasalaam dañ koy sax yërëm bu koy nettali ndax day ñaqtooy xepp bët yi xonq sidditu baat yi dafay taxaw mu mel ne ku nekk ci njàqare ak tiit buy nettali naan yonent bi nee na alayhi salatu wasalaam ndax ragal rek waxal ko loo xam ne xam na ni li amul ndax xadis bi ñu doon dégg moo mu leen koy wax di ko baamtu ak baamtuwaat ci seeni nopp bu musaana wax ba daaneel daf naan li ma wax day amaana lu ko jege lu mel ne moom loolu la yonent bi wax alayhi salaatu wasalaam saxaaba yi noonu lañu ragale woon di nettali ay xadiis di ko jële ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba tax ñu daan néewal seenu nettali lu dul lu ñu mënta ñàkk jàngale ci xam-xam te bu ñu ko daan wax itam da ngay gis prudence bi ñu ci daan àndal ñu bari ci ñoom loolu la nettali jële ko ci moom moo xam Ibnu Mas'ud la wala anas radiallahu anhum ku ci musaana wax ba noppi da nga naan amaana lu mel noonu la wax wala lu ko jege ndax xadis bi ni mu màggee woon ak nu ñu ko nu ñu ko ragalee woon dégg yonent yàlla bi yàlla yebal di wax ne ku ko waxal lu amul dina dem safara lan la jullit war a gën a ragal safara kon nit ki nga xamante ne dafay wax ci diine na bàyyi xel xadis bi moo tax Omar ibn al-Khattab nit ñëw na ci moom ci saxaaba yu kàngaam yi yonent saxaaba yi jàngee ci yonent bi alayhi salaatu salaam di abu musa la ashari yëglu ci këram ñetti yoon kenn dalal ko mu dellu Omar ne wool leen ma kooku doon yëglu ñëwoo ko muy abu musa mu ne ko lu tax agsi wuloo mu ne ko damaa yëglu ñetti yoon kenn waxuma ma ma agsi ma dellu te dama dégg yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne nit bu ñëwee ci kër yëglu ñetti yoon kenn dalalu ko na dellu mu ne ko li nga nettali ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax bëgg naa nga ma ci tegtal wala boo ko defee la dinaa la sanctionné naa la daal di dem ci mbooloo ay ansaar si saxaaba toog ci benn jataay mu dem fa nettali leen di dox diggante ma ko Omar Ubay ibn ànd ak moom ñëw ci Omar ibn ne ko man dégg naa yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam mu nettali lii Omar ne ko xamal ne yow Abu Muusa man tuumaaluma la awma lu may sikki sàkk ci sag maanute waaye damay bañ nit ñi woyofal di nettali di jële ci yonantu bi alayhi salatu wasalaam ba ko ciy waxati di askane la yonantu bi alayhi salatu wasalaam dara li ngay wax mu leer la nga teg ko ci lu leer loolu nekk loo xamante ni moo nekkoon doxalinu saxaaba yi te ci loolu la yàlla dini. diine ba diine ji ñu jàng jële ko ci moom mu nekk loo xamante ni du yëfi caaxaan de du comme ni ko ñi nga xamante ni diine ak indi ay sikki sàkk ak jeexi jaaxa ci bopp nit ñi leen tax ay nit nekk seen ginnaaw ñuy mbubboo diine ndax xam nga ni senegal fii ni ñi moom euh, nañ ma baal ci wax ji jàpp nañ ne diine lu nit di juddu mu nekk ci dereetam la xam-xam diine looy donn la loolu kenn mësu gis ci àdduna jàpp nañ ne diine sant la ba tax na ci yooyu lañuy considération yooyu lañ leen naxee nax leen ci ba ay nit yoo xamante ne bi xamuñu dara ci lislaam la nit ñi di toog di leen déglu ba nit ñi di jàng di sonn di xam diine defuñu ko nañu war a góorgóorloo ci diine sax taxawu ko defuñu ko nit ñi jàppee leen ay kilifa ci diine nga dégg kenn jug koo xamante ni jàpp na ni ci ay kër la bokk wala ci njabootu sàngam la bokk di yàq lislaam yàqin boo xamante ni foo ko natt rek weesu na ko léeg-léeg stratégie yi mu utiliser mooy wane ne day wax ci xam-xam toog ci ay plateau di wax di jaxase wala mun naan day attaquer ay nit di di di jaare ci loolu ne li ko intéressé mooy attaquer diw wala diw pour xëy na indi ay jeexi jaaxa ci bopp nañu may mais yitteem dëgg-dëgg mooy lislaam mu bokk ci sos ak nar yi ngay dégg mu koy wax mooy di songu xadiis yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ci indi ay sikki sàkk gis nga loolu moo mës a nekk stratégie wu noonu lislaam yi nga jële ko ci orientaliste yi ba wàcc képp ku mës a ñëw pour jéem a yàq lislaam rek li ngay def mooy fexe ba njàng mi nga xam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam saxaaba jàngee nañ ko ci moom te xam-xamu lislaam bi nga xam ne moo leeral diine leeral téere yàlla bi lan la ci yàlla namm lenn lu ci nekk naka lañ koy defeek naka lañ koy jaarale lépp ñu jël ko sànniloo ko nit ñi ci mbalit ni indi ci ay sikki sàkk loolu bu ñu ko defee lislaam dara desatu ci ay xeli doomu aadama dong la ñuy topp bu boobaa xar xam-xam boobu xadis yooyu du caaxaan li ci yonent bi alayhi salatu wasalam wax julit ñi wax ko saxaaba yi dafa leer nañ ñi man qaala alayya ma lam aqul man kadaba alayya mutaammidan falyatabawa maqaadahu min annaar ni la ko waxee mu nekk xadis boo xam ne saxaaba yi ñu ko 60 ëpp nañ juróom benn fukki saxaaba ñooñu kenn ku nekk ci ñoom li ko solowaat ci yow ay téeméeri téeméeri nit la muy xadis mutawaatir mutawaatir mooy xadis boo xam ne ñu ko soloo nekk nañ mbooloo mu bari moo xam ne deesul sikki sàkk ci ne lii lu wér la ndax tellement xadis bi daf leen a soxaloon yitteel leen ba ñoom ñépp a yittewoo woon xadis boobu xadis boobu waraloon ñu ragal loolu mbiru xadis ak mbiru nettali di jële ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba taxoon nag ci jamono bi fi saxaaba yi jógee nit ñi jàngee ci ñoom tàmbali di nettali liñ déggee ci saxaaba yi dañ doon bàyyi xel kenn ku ci nekk li ngay wax kan moo la ko wax di xool sa diine comme ni ko Abdullahi ibn Abbas waxee ne bu njëkkoon ba fi saxaaba yi nekkee dañoo wóolonte woon ba ku ciy wax sa moroom du sikki sàkk ci li ngay wax waaye bi nit ñi nga xamante ni commencé ñëw fu nañu fay dégg ay wax di nettali dañoo gën a teey ci li ñuy jële ci ñoom Muhammad ibn Sirin wax ne ci jamono yooyu bu nit musaana wax dañ naan ko ku la nettali foo jëlee li ngay wax du lu nit wax rek askane la ko yonent bi ñu jël ko bu doon loolu la diine yàqu na ci loolu lañu ñoŋalee diine sàmm sunna yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba kenn mënu koo yàq ay nit jug ci jàng ko xam ko xam ña koy soloo xam seen dugg seen génn seen juddu seen ndey seen bàyyi fañ jàngi xam-xam seen maandute di ko gëstu pour di xam la ñuy nettali lañ ca war a mën a jël ak lañ ca war jël loolu jur luñ tuddee ilmul jarx wa taadil muy xam boo xamante ni li muy lijjanti mooy xam ñiy soloo xadis yi ñoom seen jëmmi bopp lan mooy seen mbir lan mooy seen mokkal xadis ba daan dem sax di leen poser ay question pour di di xool ba xam li ñuy wax mokkal nañ ko maîtriser nañ ko wala déet mu daan jaral nit mu jóge dëkk dem ba dëkk di fekk ji ku daan nettali ab xadis mu koy xool di ko jàngat di xam ba xam kii li muy wax ni fu mu ko teg yooyu nekk xam-xam boo xam nañ ko bind ci ay téere ci jamono yu teel ci siècle yu njëkk ya nettali seeni dundu muy kutub yi nga xamante ne bi mooy ilmu ruwaat ilmu rijaal nettali seeni dundu kenn ku ci nekk mën nga xam kii mooy kan fan la juddoo ci ñan la jànge ñan la bokkal jàng xadis xadis yi nettali du moom kase moo ko dégg da ko àndoon ak ay nit di ko dégg am na waxin boo xam ne mënu ko ni waxee bu ko waxee dañuy xam ni daa juum kon mbiru xadis du mbiru ay benn nit boo xam ne day ñëw rek jël ab téereem bind lu ko neex ne jullit yi mi ngi nii li yonante bi moo ko wax nit ñi ne ko waaw waaw kay loolu boo déggee nit di ko wax xamal ni c'est un nulaar mana xamul dara dara dara dara ci li muy wax benn nit comme nit benn jaaxil di wax naan alimaamul Buxaari dafa ñëw bind téere nangam sàngam xamul ne Buxaari téere yi muy ne xadis yi muy nettali yépp ay nit a ko ko nettali yoo xam ne ñi ñam ko déggee ay nit ne moom ñoo bokkoon di ko jàngal ak moom jàng ko fa mu ko jàngee xam ko da nga daan gis koo xam ne day ñëw jël téere bi Buxaari taalif mu taalif même xadis yi nekk ci téere Buxaari li ñu tuddee al istixraaj même xadis yi nekk ci Buxaari mu taalif ko jëlee ko ci yeneen chaîne de transmission yoo xam ne bokkul ak yu Buxaari ba dajeeg Buxaari ba dajeeg Buxaari ci xadis yooyu. ci ne kon du loo xamante ni moom moo ñëw rek daal di koy nettali ni wax ko li gën a yomb ci xam-xamu xadis li ci gënoon a yomb mooy nit ñëwoon sosal yonant bi alayhi salatu wasalaam daal di koy tëralal benn chaîne de transmission ne diwa ko nettali diwa ko nettal yonant bi moo ko wax te li mu wax du dëgg loolu mooy li gënoon a yomb xam ci xam ne kii li muy wax du dëgg ndax il suffit que nga xool ci xadis yi kooku mu askanale wax ji ne moo ko ko nettali xool ñi ci moom xam ne xadis bi bokkul ci lu mu nettali du dëgg da ko koo sosal waaye du dëgg kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne day wane ne yàlla dafa sàmm diine ci xadis yi ñuy jàng di ko jële ci yonent yàlla bi alayhi salatu wasallam dafa bokk ci diine ndax mook alxuraan la ñuy boole jëfe leen ngir mën a xam diine ngir mën a am diine joo xam ne ju leer la ñoom ñaar ñooy ànd ci boole leen di leen jëfe ndax yàlla lu mu ñuy wax mooy fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul mooy yàlla akub yonentam yàlla li mu joxeel boppam yonent bi jox ko muy waxi boppam ju dara raxul ak lim ko sant jox ko ko ci xam-xam ne ko na ko jël jàngal ci nit ñi seen diine lii di téere yàlla beeg li ci ajoog li ci nekk ay atte mu ko doon jàngale nekk fi diiru ñaar fukki at ak ñett sonn ci loolu jàngale ko coono boobu héritage boobu noonu képp ku koy jéem a gàkkal wala nga koy néewal doole rek xamal ne imma noonub lislaam la boo xam ne yàq diine ko tax a jóg wala ab jaahil la boo xam ne dafa war a noppi war ta wax hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله